voilà euh, cette affaire yaa ngi koy seetaan ba li li ci gën a neex mooy bokkoo ci biir donc di nga ci am lecture boo xam ne xëy na dina gën a jeg objectivité que ñi ci far dëggantaan buñ ciy wax wala ñi contre euh, leaderu euh, Pastef bi. xam nga problème bu am mën naa ne ci laa bokk ci laa bokk en tant que citoyen tout d'abord. Mhm. mais ci laa bokk en tant que parti politique d'opposition ci laa bokk en tant que parti bu bëgg a bu bëgg a jël pouvoir bi xam nga lan moo chaque fois lii bu bu guddee ñu ciy xëcc di kii damay tiit xam nga lan laa tiit li may tiit mooy que je vous assure euh, que ça soit ñi nekk au pouvoir xam nga une bonne partie quand même PDS lañu nekkoon xamante mhm. nañ bu baax donc man li ma li ma leen di ñaaneel ñoom ñoom ci seen bopp xam nga nit bu démissionné c'est trop tard mais je pense par patriotisme et pour l'amour du Sénégal tout le monde tout le monde doit souhaiter vraiment que 2024 qu'il y ait un nouveau pouvoir <coughs> non non non non non j'arrive j'arrive ah, ah. j'arrive xam nga lan moo tax dama ne ñoom par patriote xam nga lan moo tax ce pouvoir là de Benno Bokk Yaakaar au en 2024 ce sera une catastrophe socio-économique pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que les populations ne vont pas l'accepter. Non seulement ne vont pas l'accepter xam nga lan mooy am lu ñuy wax atrophie xam nga quand les muscles sont atrophiés il ne faut pas travailler <laughs> je vous assure que ñii s'il reste au pouvoir il y aura une atrophie sociale il y aura une atrophie sociale les gens seront comme euh, xam nga crampe dañuy crampe yaram day nagam. oui dañuy nagam du ñu mën a fonctionner loolu. ñii mais sur la base de quoi nga teg loolu. non c'est xam nga la non non la base c'est simple nañ ñëw nañ ñëw ci non non nañ ñëw ci lii xam nga c'est pas une question de bilan yaa gën a xam ne bilan. Sénégal loolu lañ bëgg avancer. non déet attends réellement. bu nekkoon bilan ab Wade du fi jógee quand même. Macky a fait plus que lui hein. non non non c'est <laughs> non non non foofu bu nekkoon feneen mën nañ ci ñëw mën nañ ci ñëw. Mm. les chiffres sont là de 12 pour cent. Aly Ngouille Ndiaye ci boppam defe naa déglu nga ko yeer xam nga yàgg naa de wax loolu mais ñu koy weddi mais Aly Ngouille Ndiaye l'a dit il a dit en 2012. Mm-hmm. il y avait un taux de chômage de 12 pour cent aujourd'hui c'est 24 ça veut dire le double. mais crise yi Macky jànkonteel Ablaye Wade jànkonteelu ko. non attends non la crise de l'énergie xam nga loolu sax daf pas dans ce sens mais li mu wax. <coughs> dégluwoo ko. <laughs> non je pense pas ah, mais loolu waxu ko ah. loolu c'est c'est c'est des chiffres. qui sont sortis à ANSD et autres. mais dafa dafa mais li mu bëgg wax mooy nous. c'est dans ce sens sax la bëgg a juger mhm. la question de du procès Ousmane Sonko allez-y gis nga depuis plus de deux ans nee laak nee laak dugalal fii génneel fii le parti démocratique sénégalais a été créé et dirigé par un homme qui a toujours milité pour la renaissance africaine et la renaissance de l'homme noir qu'est-ce dire en euh, après la tabaski aussi notre candidat a écrit un message au peuple sénégalais mu ne moom vraiment lu mu bëgg coow li bëri na kërti kërti bëri na le nombre de morts bëri na mhm. lu mu bëgg mooy le rassemblement dafa bëgg sénégalais yi boolewaat seen bopp tappewaat seen xol yi ànd moom la Karim Wade wax c'est un message adressé au peuple sénégalais loolu bu amee li ñu continuer di def nii loolu du mën a nekk donc ne serait-ce que pour ça en tant que militant du PDS je veux que ces choses la soient stabilisées ñu ne nañ dem élection bàyyi kii war naa dugg ak kii wartu dugg kii war naa dem ak kii warta dem ñu dem élection le peuple sénégalais choisit que ñu mën a demaat même ñu ñu gañe même ñu ñu gagné s'ils le veulent mën nañu ñëwaat ànd ak ñi leen gagné pour jéem a construire un Sénégal réconcilié avec lui-même loolu lu ñu woote moom la sunu candidat woote il dit il veut reconstruire un Sénégal basé sur quoi le rassemblement pour trois choses il y trois axes boo xoolee lu mu bind démb ci ngoon. dinañ ci ñëw ci kanam troisième point ak yooyu li ma bëgg taxaw ci waaw donc tey pour defe comprendre fu ma mhm. bëgg jëm mooy ñun en tant que militant du PDS nous nous sommes des militants de la démocratie et de l'état de droit tant que le droit est respecté et dit nous mhm. sommes contents nous sommes contents le droit a été dit sa gis-gis étant donné que c'est un juge nous ne pouvons qu'avoir la présomption que le droit a été dit et si le contraire si c'était le contraire aussi nous allons dire que le droit a ah, été dit okay. j'ai dit tant que c'est un juge qui l'a dit j'ai une présomption comme quoi le droit a été dit donc vous ne croyez pas à ces histoires de juges corrompus non attends je ne peux pas ne pas y croire il n'existe pas à travers le monde un corps où il n'y a pas de corruption. corruption. Il y en aura toujours. Mm -hmm. Il y a des juges corrompus, des journalistes corrompus, mm -hmm. des professeurs corrompus, etc., etc. Donc il ne m'arrivera jamais de dire une telle chose.